amul fenn allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar alhamdulilah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر

asalaamaaleykum